maam Cerno ko jàngal xam-xam Serigne Mbacke Bousso Cheikh sëñ Maam Mor Jaara borom Saam sëñ Tuubaa ko tëlbi yar ko mu jaay njuróol gi sëñ Tuubaa nag jënde ko taalibe sëñ Fallu ma jur di saa bàyyi maa ko moom maa jël li li nga ma juree jaay la bi nga ma joxee njëg gi maa la ko jox addi mm-hmm. yaa yu seexu na fi sel murtaja yaa fatihan maa kaana qablu murtaja biaxtu bu nu wate bil lakum li kay bi xar nga wa baxdama sarituha minni fa ni lakum bi xeyri mal moo tax daana wax ne may Sénégal. si sëñ Fall <laughs> may Sénégal. sëñ Fallu mooy werte son rouge. mooy loolu mooy la. werte son rouge mooy sëñ Fallu nee na du ma weer kenn. du ma sonal kenn du ma rusloo kenn. mooy werte son rouge. du weer kenn. lu ma kenn lu ma kenn. boo maa xajoo seen i bang bang. boo ko bëggee ci kaf sax mu wuyu la. alaaji faloo mbokk xajoo ñëpp. ndeysaan engagé jumaa ji yeggale ko. Mm-hmm. ci jamono bu doy waa ak taxaw am relation ñëpp réew bi ñëpp bëgg ko ñëpp fonk. Mm-hmm. moo nekk 45 ba 68. 45 la toog ba 68 mu doon xalifa Serigne Touba moom Cheikh Mouhamadul Fadal ubbi jumaay 63. na ko ni nga ko bëggee woon ne la ko defale muy jumaay Touba ji na sëñ doon juróomi soroor mel ni mel taxawee ni mu taxawee. ñu boole ko liggéey bu mat mu xajoo ñëpp mu ma sa ñëw ci këram sëñ Fallu faj sa yitte xajoo jirim yi daa ma sam génn kilifa gu sëñ Fallu na ko ganese ma mu ne bari taq-taq sëñ Fallu la ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis déeg lu woyof na tong ci kaw bu dus ñëwee na ko tonet maa xajoo ñëpp allahu akbar sëñ Fallu mës a jànni kenn mës sa toroxal kenn Alaaji Fallu bëgg sëñ Tuubaa nag ba egg ci ne xubbi lahu dëhra yuxni an xubbi siwa saa xol bi boo ko lambee ni sëñ Tuubaa defoon ci Rasulullaah ba dara néewu ca sama xol bi sëñ Tuubaa rek a ci nekk ba yegg ci ne saf ko du ma li xubbil xadimi fardal ara saa yoo sottee sax rongoñ ngir bëgg sëñ Tuubaa farata la ngir bëgg sëñ Tuubaa may ko loola moo fi nekk ba 68 Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw borom bi la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké njëréem la feeñee jamono Cheikh Abdoul Ahad Mbacké 14 ñu di ko wax gaynde si Abdou Aziz si Dabaax. radiyallaahu taala bi sëñ bi daal génne àdduna. Mhm. da koo mar si yàlla yi rek laa la ciy wax. li tax ma ne mag ñi nawante wu ñeewante wuñu woon dañoo nawante woon mag ñi dañoo mhm. woon. Mhm. moo tax ñu bëggante ñun nag dañoo ñeente moo tax ñu iñaanante. mais mag ñi moom dañu dañu dañoo nawante woon dañoo nawante woon yi dañoo ñeente. waaw da ngay ñàkk siiw iñaan. jàngi ba ñibbi si kenn xamul sa xol tàng nga bañ gaañi dégg nga liggéey te doo am dara en kenn du la boole ci dara sa xol jeex mag ñi nag liñ daan nawee nit mooy mën a jaamu yàlla bëgg yàlla ñun nag dañuy ñeente di wa kaat kaatam baag di wa xaalisam baag sa xol jeex nga bon looloo koy waral. dëgg la de mag ñi nag ñoom ma ne la Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh. radiyallahu taala bi sëñ Blaat àdduna bi mu koy marsi yàlla lu mu ko wax ab baxayta ma madaxan aylamal ulama yaa ajwada naasi turan muftada alami فكم فقير كئيب حل ساءتكم وآبى يشكركم كم كم وكم كم سيدتم كل ما قد كان مهدما من بعد والدكم يا صفي سيمي loolu El Hadj Abdoulaye Sy Dior gàcce galaama si Abdoulaye bàyyi nga tagg sa ginnaaw bari waa na ku ñàkk ñëw sa kër buy dellu day sant yow Cheikh Abdoulaye moo leen lu màbboon sa ginnaaw bàyyi yaa ko defar yaay borom jikko yu sell yi loolu day na ci tagg Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne Cheikh Abdoulaye Jaxate dane ko yu taabi al mar saa am din way so an si xalatin wayalu bali bi la si jahila addi allah jabdu nee na yaay koo xam ne mboolem lu way dox ci aw melow addi addi addi allah jabdu asi da baax jërëjëf loolu aw doxin la woo xam ne nit ki da koy bàyyi xel ci loolu loolu la wax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké loolu la ab xëyta baax daka la ko wax bàyyi nga sa ginnaaw aw tagg mag ñi ñoo baax sëriñ bu ñàkk kiñaan bi ab xëyta baax dak aw tagg nga bàyyi sa ginnaaw mag ñi la ñoo na ah, xoolal ni mën a waye ñàkk kiñaan bi ma daxan ca yàlla ay laman ulama yaa ajwada naas طرا مفرد العالم فكم فقير كئيب هل ساءتكم وآب يشكركم كم كم وكم وكم شيدتم كل ما قد كان منهدما من بعد والدكم ويا صافي سيام <laughs> شعب لحد موم حما مدينة توبا سادها صرفا وأمن الأهل والجيران والنزولا مو سيكريتي توبة moom 58 تو نو 68 68 68. la doon xalifa Serigne Touba moom la ñuy wooye ñàkk caaxaan mooy bàyyi laat. moo sécurisé Touba Touba. Touba indi gendarmerie yokk jumaa ji def université. Mhm. daaray Kamil Cheikh Abdoulaye Hadj Ngilone régler dëkk bi mooy ki nga xam ne bi mu feeñee jamono hmm? bàyyam sëñ Tuubaa dana am naa ci moom yaakaar ah, oh, Cheikh Abdoul Ahad dafa ñëw régler Cheikh Abdoul Ahad taqdimuhu jamula waxtasirullahu bil fadli si kamula faqrul muridina man afta dama sutuhu li ali walidihu man humu kasila ah waaw bi bob li jiwdil yaxidul mar ay sunaha maalaama maa naa la man yëpp xiilahu masala hmm. waameew nga ne lay sotti ci ku mën a doon moom Cheikh Abdoul Ahad ku mas a ñëw fi moom moom Cheikh Abdoul Ahad moom la jàngaloon gëm ak wóolu ak yaakaar ak ragal sëñ Tuubaa lañ koy def borom fi duure yaangi ni jambar jàmbar mhm. jaa borom dogu gaangi ni Cheikh abdullah Ahad moy ki nga xamne ñepp ko fonkon ngir ak deugum ñak caaxaan mën a joxe discours bo xamne ñepp ñëpp koy déggandoo bëri fulla wax bo la ko ku mo mhm. leen ciip ciip joy gis léegi la xew mhm. way musta xew fo murid yi ngay gis yépp ak kat yi yépp léegi la ay ñom ba ñom ñok ngay degg waaw bëri ful la. boo waxee lu dëgg mu weddi. Mm-hmm. boo tooñee mu teg la ci yoon. yu taabi al mar saa am din wa yasfau an di xalatin wala yu baali bi la si jahila ku ko tay mu teg la ko. ku juum mu baal la ku ko réeré du la faale mooy Cheikh Abdoulaye. yum naxu baxru la yu saraxu sa furada ñàkk caaxaan rek yurdil aadi wa yusalhib ma amala nday jooru sëñ Abdoulaye géej la la sàmm ñu sëñ Abdoulaye jël si la ci bépp noonu boo xam ne melokaroo li ko sëñ Tuubaa jox dane saa bakkan laa ci teg Cheikh Abdou Lahad ndaw ñi yar leen ba noppi nag incarné boppam amul complexe fexe na ba créé mbub moo xam ne bàyyi laat la tudd amul bàyyi neneen mënoo ko tuddi kenn ku dul bàyyi ma ngi ne bàyyi ah? mooy gëm sa bopp li ñuy wax xam sa bopp moom la def bii dog ko la li mu jekke wallaahi ku ko sol ku la seen xam ka nga doon muy bàyyi laat te boo ko solee kenn du la ñemee jox carte invitation caaxaan déedéet mas naa am ku ko mas a évité maam kilifa gub ci waxal na ko ma mënoon lu fa wuuti ndax bu demee suñu nawle du fa ne du nu fekk suñuy nawle daa xam boppam. mais ñu dem ci bàyyi maam Thierno Birahim. borom darul moxtee ngoog. sëñ Tuubaa yar. laata nga neexoon nag. ah. <laughs> sëñ ko jàngal. <laughs> maam Thierno. ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng ak liggéey la boole ba am ndam. Bamba daa soppoon Thierno sax. moo waxoon sëñ Abdoul Ahad ma lay wax na ko sa bàyyi day jom la rawe ñépp borom dëru ko waxoon moo ne ma Cheikh Abdoulaye sa baay mhm. jom la rawee ñëpp mhm. jom jooju da ko doon mhm. fekke ko ci moo tax Cheikh Ibrahima mel noonu ci doxin woowu moom it mësula rët mësula tiit du jaaxle mësee fu ko kalaame bor moo baaxle 40 kilomètres la gor ci ndigalu sëriñ bi ci ndigalu sëriñ bi mës ta juuyoo ak moom mës ta tàggoo moom sëñ Tuubaa nu mel man xam nga mag ñi li tax ñu gore mooy lu ñu am sëñ bi lañ koy delloo sëñ Pape xanaa xamoo ne sëñ Touba li ko yàlla defal dafa jafe fi ne mel na mag ma sa opposé naan ni ma mel ak sama xam-xamam ma ko mayoon ak nangam doo ko dégg. loo bari la bari la xoolal sëñ Muntaxa mi fi ne. <laughs> ba ne sama université bi lu waaye am bu yët ko. jàmbaar loolu ku ne sonni say taalibe bi la yët ko. loolu la sëñ Touba noosee mbiram. doxinam woowu. Mm-hmm. ak jëfinam woowu. noonu noonu Cheikh Abdou Lahad mel ci melo woowu mooy melokaanu fit fit wi borom Daaru Muxti meloon gi mu amoon. Mm-hmm. ñu am xam-xam ñëpp xam ko ma noppi waggar ko ci ay doxinam wu réy bi nga xam ne amoon na moo tax waykat bi nee na ko bu shuraaka yaa cerno ibrahima bu shuraaka fuxtal akaamire xiddi mën na xoo mawlaak lii day wane defar gi muy defar mhm. boo demee ca doom defar boo demee ci taalibe mu defar yoon wi di continuer Cheikh Abdoulaye xoolal li mu fi réglé sëñ pap mhm. ci ni mel ndax xam nga murit dafa nekk loo xam ne dañ koo tudd te du ay caaxaan mhm. xam nga léegi-léeg nga bëgg àtte nit ci murit hôpital boo dem am na morgue. am na morgue. waaw waaw. am na ñooñ nin mel ci tariixa murit sëñ bi bëgg ko am na ñooñ nañ mel ci tariixa seex sëñ bi bëgg ko mhm. borom tariixa ba bëgg ko dëgg mhm. waaye boo leen boo àttee ca ñooño yoon wi rek juum dëgg la ku du siyaare ji du joxe addiye bokku ci ben dayire du jaamu yàlla du defuk fete wu ëskay fasale ma nga sa ginaaw jëwriñ dana bax <laughs> bobu murid ku ko soxla am na ñu ëskay rek fitas ak diingat waaw señ bi juma jam defar señ bi na mel nangam ak nangam ak lima la wax legi ci diingat moy lima la ci wax legi dama ne la hmm. mi mo waxone kula lu mu forsani la hmm, hmm. sëñ laa nee na ku la dàq jotu la lu mu for sànni la. fi ne bu nit boo doon wax ak xale ba yàgg mu tëb nga dàq ko dàq ko jotu ko danga nag bu ma la jotoon de loo for ci suuf yónnee tax ku la jotu la lu mu for sànni la. Mm-hmm. waaye du fi amee junne nag ay wax du ko wenti. Mm-hmm. jëf du fi amee. Mm-hmm. borom photo bi ñu jàkkaarloo. bi ko sëñ bi ne nii la tubaab bi ne ko lu du nii Thierno da ne nii la. gouverneur général mu ne lenn tontu lu dëgër laa mës a dégg sëñ Tuubaa wax ma ko Thierno ca toppaan. mooy garab bi mu ne ko tasaareel mbooloo mi te tasaare njabootu señ bi ndax fii nga nekk kenn du fi nekk mu ne ko toxu gi moom mën naa waaye tasaare gi moom sama kaw nga jaar ba noppi door a jaar ci kaw njaboot door a def li nga bëgg boobu sëñ baa ngi ci géej gi sëñ yar aw fit ngay mm-hmm. moo tax soxna Faty Issa daa waxoon ne benn ne ko maam Cerno tubaab bi dañ ko yóbbu di ko xiixaan mu ne leen ko ko yar ku yar du ñàkk fit <laughs> ko ko yar ku yar du ñàkk fit du ñàkk fit yar mm-hmm. doo ñàkk fit te moo yar maam Cerno moo yar moo ko def lépp lam yu faarix nii lam yu xaalif nii doy na mës a man mës a man